waxtaane lëf ci lislaam ba muy soog a jóg jafe-jafe yi nga xam ne amoon na ko ak ña ca nekkoon la ñu daj ca màkkatul mukarrama te sallallahu taala alayhi wa sallam nekkoon ca bopp ba ba muy wax bada al islaamu gariban wa sa yaawdu gariban fa tuuba lil guraba booba metti na lool lislaam dafa judd ci ak tumuranke waaye sunu borom dana ko saytu dana ko yëkkati ba mu ne ba àgg fu nekk waaye itam dana dellu ci tumuraanke googu yi sunu borom noonu lay doxale ba mu sallallahu taala alayhi wa sallam di wax yaati ala nnaasi zamanun alqaabidu ala diinihi kalqaabidi ala aljamr dafa mel ni waxtoowu leen ca àgg da àdduna dana dox ba képp koo xam ne dafa ngoy ci diineem ci pas-pas di sàmm diineem ci pas di sàmm ngoram di sàmm la ko lislaam gàll lépp bu di ko jëfandikoo lam ko tere mu di ko jéem a wattu da mel ni ku yor aw xal wuy dund ci sab loxo danga nga amul muñ lool am ngor lool wala nga sànni ko loolu Moustapha sallallahu taala sama waxoon na ko waaye ña nga xam ne seq nañ ci ay jéego ba lislaam ñépp dégg ko mu fare kaw lu dul moom gannaaw Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu taala anhu ma nga xam ne kero ba mu ñëw ci diine ji fanweer ak juróom-ñeent fa fekk mu ñeen fukkee leen waaye booba àgg na ci lislaam am jafe-jafe ba nga xam ne nodd gi nga xam ne dañ ko war di biral ca kaw ñépp dégg ko muy ab woote ku ko dégg te amoo ngànt war wuy ji demoon nañ ba bu ñu koy bu ñuy noddu dañu koy wax ci ab lu mel ni ab tax tax boo xamee danga ciy dëpp sa gémmiñ da nga wax ca kaw waaye wax ju du génn